ma sadd bayit tey woote bisub seex jiili bul wuute ñëwal nag mel ni kuy rooti ci teeni ngërëm yu dul jeeti ñëwal ngir sàkku loo bëgg a am ci yéene ji sell ànd ngëm bisub yërmande waaju ko xam fu ñuy wooteeti gis kooti borom bis bii di sunu ilimaan ju màgg ja lool bari kiimaan te doon ko rafet le ay melokaan ba tax ñun diine naw kooti ku ñëpp nawoon la ngir dafa doon ku teg tànkam ci ngën jiw yoon ku wéetal yàlla dégg la woon te sopp yonneen ba roy kooti melaw seex bamba moo di melawam ba waa ji ko gis ni kii day moom di yëmbuur yàlla mii di hakim ki tax duñu gis ci moom wuute bisam bee jub si waa ju ci ñëw na taataan am na niir yuy taw ku teew làq yi njariñ na ñëw ñëwal bul wuute bi woote waxal seex moustapha suñ seex di nee loo wax di mooy la mu wax te donga yi yëpp a marsam ndox dangaa doon toon bi roote asalaamaaleykum bokki taalibe yi xam ngeen ni noo ngi fii ci pàkk bu sel kër goo xam ne gii ku mës a tiit baa nga jàkk boo fi duggee sa aajo faju na noo tey ci kër Cheikh Abdou Khadir yilimaan yi yilimaan yi doomam ju baax ji Serigne Cheikh Mbakkeem Cheikh Abdou Khadir dem na ca Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy sëriñ Touba di Cheikh Abdou Khadir ci moom di Cheikh Mouhamadul Bachir ci moom laaj ko ndigal mu jox ko ndigal ci bis bii mu waxoo mu teg ko ci loxol sëñ Moustapha. moom Cheikh Abdou Khadir mii toog nag rakkam ju baax ji ànd koog bokki mbusoo beeg mbakke bokki Cheikh Abdou Khadir yi kenn desul nu toog war leen a fàttali bi Cheikh Abdou Khadir bi nga xam ni li fi jaar a fi jaar ku ne doon ñaan kañ la ak ban bis la ñëw na ñëw na ca na daa ñëwe ñetti fan ci weeru tam xarit bis ba mu ganee jamono te Serigne Touba waxoon maam Cerno Birahim jeexal say jéego ba ngay dem ba ba ngay ñëw koo dajeel jéggal nañ la ngeen di ko laaj. bis bi ñëw na altine le première août incha allah bi di njëtti fan ci weeru tamxarit Cheikh Abdou Khadir nag kenn du leen ko fàttali kenn fàttewu ko waaye ñu di leen ko soññi mooy jaamukatub yàlla ba xanaa dégg ngeen ministre Serigne Lamine jóob la mu waxoon ci moom ne booy dox ci àll ba penku réer la boo séenee Cheikh Abdou Khadir kabaral mooy penku Cheikh Moustapha nag toog na indil nu nu bagaan ya mu bëgg. ku ñëw indi ko taatan ko Cheikh Abdou Khadir duyel la ko bagaan yépp ñëw na ñu waaj bis bi kon ma yëkkati sama kaddu jox ko sëñ Maamun Bousso imaam mu ubbil sëñ Moustapha nun ñëpp nu ànd déglu ko arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala imaamil mursalin sayidina wa maulana muhammadin bi alihi wa sahaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nii ñu fi daa toogee rek di wax wax ji nu daa wax ci bisub ku tedd kii nga xam ne mooy Cheikh Abdul Qadir Mbakke imaamil murs imaamil imaamil muridin uh, wa taqiyuhum wa xaafiduhum wa wariihum uh, ñuy toog ngir bis bii nga xam ne moo dellu siwaat ñu di koy yëgle di ko fàttali Serigne Moustapha dana jël kaddu jëmmal woote bi ni mu war a taxawee ñu xam ne jëmm ji moom nga xam ne moom la ñuy wooteel mooy ittaqullaha haqqa tuqaatihi wattaqullaha laallakum tuflixuun yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi nag mooy Cheikh Abdul ndax foo ko seen mu waaxu jëm njëriñul bindeef yi la wala ak topp yàlla mooy jëm ci sëñ Tuubaa rek tey gan ay bis bu mas jënal siyaare ji way juróomu tàdd woowu amul ci lim nekk ci kaw suuf lépp mhm. kon nag bisam bu agsee ñëpp danañu ko bàyyi xel danañu ko séenu danañu ko fàttaliku kon nag ñu fàttaliku ko nañ ko daa fàttalikoo ndax moom mooy jëm sëñ Tuubaa jëm waxoon ci boppam ne lam an xu maalam yu fidi kenn mosoo ko seen mu jëm ci lu dul lu am njëriñ mhm. dem di xettali yi ku fi bàyyi ko mbaa ko feeñ ci jamono mu dem di ko joxe aw tur mbaa muy waaxu jëm ci jëm barabu sëñ Tuubaa bi mbaa muy waaxu di jëm ci bindee yi ngir xettali si leen mbaa muy waaxu ngir jëm ci topp yàlla mooy sa topp sëñ Tuubaa kon nag loolu mooy la ma maa la muy firi Sëñ Tuubaa waxoon ci boppam kon loolu agsi na ci moom kon duñ ko guddal dañuy jox Cheikh Mouhamadou Moustapha mu joxe ndigal li nam ko daa joxe yéen mbokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ak yéen mbokki jullit yi teew ci jataay bi yëpp ñi ngi leen di nuyu ci turu sëñ Cheikh Mbacké mi nga xam ne moo toogee ci jataay bi sëñ Abdoul Khadir Mbacké di leen nuyu ci aw turam di leen dalal jàmm ci aw turam di leen jottali it ci aw turam di leen jottali nuyoo xalifa général di murit ndax jataay bii biñ ko laata amal nii <laughs> demal na fa boppam ba yëglu ni ab taalibe bi war a def bañ jox ko ndigal ci bis bi nañ ko màggal nañ ko war a màggale ba jot ko ci ndigal ci ci xalifa général di murit muy sëriñ Muntaxa ayyadahu llah wa nasarahu ginaaw bu ci jotee ndigal nag la wax ne nañ jot li ci ndi ci aw turam yëgal bokki jullit yëpp bokki taalib yi yëpp bis biñ baaxoo defal sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñu xamal leen ne mi ngi doon ñetti fan ci weeru tam bi ñu jëm war a dëppoo benn fan ci weeru ut ñi ko yëgal taalib yi di ñaan képp koo xam ne ñëw nga ci la ci sëñ bi daali woon tawféex jooje te moom baatam doon baat boo xam ne dafa sar lu mu wax rek yàlla da koy saral dafa jëflante yàlla ba loolu ne yàlla ne wala xat sabaxat kalimatuna li ibadina al mursalina sama baat sar na ci yonent yi moom it yàlla jëflante na moom ba loolu foofu ne lu mu wax rek yàlla mën na ko yàlla da koy saral kon ñi ngi ñaan képp ci ñëw yàlla dajale la ak loolee ñuy wut ndax yàlla daa wax ci alquran ni lu jullit di war a sàkk njëggal ak yërmande yàlla yi mën ci moom la maxfiratun min allahi wa rahmatun xayrun mimma dajale lépp am njëggalu yàlla ak yërmande ko moo gën ci yéen kon nag lépp bépp bis boo xam ne boo fa demee yaakaar fa njëggalu yàlla yaakaar fa yërmande yàlla war nga caa farlu war ngaa ubbi say boole te taatan ndax wóor na ma ne li inna li rabbikum fi ayaami dahrikum la nafaha bis bi ci la bokk ala fa taharradoo laha taatan leen ci bu baax kon yàlla na ci yàlla may ñu taatan ci te taatane boor yu yaatu yu ànd ak positif ànd ak euh, euh, yéene ànd ak xasdul xayri ndax loolu ko ko def ci bisam ndax dundam gépp mi ngi ko jeexal ci fihlul xayri ak niyetul xayri ak xawlul xayri ci dundam bépp ci loolu la ko jeexal kon ku ku ñëw ci bisam loo ci sàkku ci sun borom mi mu doon liggéeyal waajuram wu tedd wi mu doon liggéeyal mën na la ko defal kon ñi ngi ci woo ñépp bay wuñ kenn ndax moom doon na jëmm joo xam ne ku maandu la woon te bëgg ak maandu ku ku amoon yërmande la ci nit ñi ku daa dimbale néew doole yi la ku daa rafetal jëm ci bokk yépp la ko daan nemm ku bokk yépp la ko ku doonaan nag koo xam ne eh, loo ko mën a def daanaka wax sax man bëgguma kenn ku ma jot li ci nit ayib waaw waaw ma ko bañ de waaye ku def def nga ma lu ma naqari oh, li ma bëgg daal ku ma jot ci nit lu baax foofu la nekkoon kon doonoon na koo xam ne ku fiir la ci diineem nag waaw kooku jeyee ku ne xam nga ne ku fiir la ci diine diine moom du ci maye dara waaw mm. noonu la ko yàlla bindee woon kon daal waxu saaral xawli innahu kaana mathalan raihan lissalaahi wa taqwa wal istimsaaki bil kitaabi wa sunna kon daal li ñuy jeexale wax ci moom mm. mooy na ngeen xam ne misa ab ab royukaay la bu yéeme ci baax ak ragal yàlla ak jàpp ci alxuraan ak sunna loolu la ko yàlla bindee kon loolu li nga ci yéem. mooy mm. waajuram bi rek moom mi nga xam ne ni ko sëñ Modou Bousso waxee woon rek ñim waa këram ñëpp def na leen foofu moo kan nujoo mi man talxa minhum xiltahoo kaana sayidal axyaari ñoom ñëpp ñi ngi mel ni biddi koo ci dajeel rek bu la neexee ci waxtu nga ne moo gën ci tànneef yëpp te danga wax dëgg loolu ka ko def ka ko solal mbuum moom ka solal baatin ba ak jawhar ba ak saayir kooku mooy sëñ bi kookee nga xam ne nag am na menn mag mu daa wax sëñ la Seck la tudd mooy bàyyi sëñ Baye Sine Seck dane man de sëñ bi moo koy door a gis ca gànnaar dama yaakaaroon ne dama daa wax ne sëñ bi sëñ bi demagut ci géej gi bu ko gisoon dama koy wax ne ko ñëwal jébbali ci bii dëgg la ndax bi ma gis ci gànnaar bis musuma gis ko ni mel waaye bi ñëwee Jolof dama boo mënoon a wëri sëriñ bañ doon jëflanteel ci gànnaar dama koy wax ne ko ñëwal jébbali ci bii bi ñëwee Njaaréem moo mënoon a seeti sëriñ ba noon ca Jolof ne ko ñëwal jébbalu ci bii naa ko def noonu la sëriñ noon la sëriñ bi mel kon yàlla nu yàlla dimbali taasuñu ci barkeem ñi ngi ciy woo bokk jullit yëpp bokkuñu me bàyyiwuñ menn mbokk bàyyiwuñ benn ci tarixe suufi yi ñëpp lañ woo wooy ci it jànkati alxuraan yi bàyyiwuñ kenn ndax alxuraan a ko gënoon a ñor ci lépp alxuraan daf ko bëggoon di ko déglu di ko firi nga xam ne firi yu bari jàppe naa ko ci moom danaa ci indi sax yenn yi rek loo teew sama xel nii rek ana boo xam ne dañuy dañuy dañuy teg alxuraan bi nasullaaha fa nasiyahum mu daal ne nasullaaha fa nasiyahum fa tarakahum yàlla du fàtte na la ko firi mu leer la la koy firee fàtte nañ yàlla yàlla bàyyi leen ndax yàlla du fàtte yàlla nag day def boo ko fàttee mu bàyyi la فكنا ينون إن إن أرسلنا إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأسهم أصلا من تأسهم موي كيدلو daal ni axraahu wa xamala axraahu fiihi wa xamalahu alayhi mooy mooy yàlla mooy mooy fiir xiir gi la ci xiir waaye loolu mooy këyitloo seytaane day ay gaayam da leen di jël di leen këyitloo di leen ñu caaxaan loo rek ñu ñu ñu ñu ñu ñuy tàppe luñ ko indil bu subaa ñu indilaat leen dolli ci mu ne ta ussuhum boo ko doon firi xeer la ko téere yi firee waaye yow dee ko firee kayit loo kayit loo lu <laughs> mu la naxee tey bu subaa mu naxewaat la leen hmm. dolli ca la naxe woon nee na loolu la seytaane def ñaan ak moom dégg fekkee naa yit mu ne mus jal mu ne alxuraan mu ne mu ne loolu wax na ko dane eh, mus jal <laughs> ak ak ak rek moo am mooy daanaka li ma doon wax ci julli gi mu ne mus jal mooy luñ tënk mooy luñ boyal luñ joyal dañ koy firee ci woyof mhm. muqayyad mooy luñ tënk mu ne am na yoo xam ne alxuraan bu ko indee mus jàll la ñëpp la ci yemale jullit ak yéefar mooy lu mel ni xal jisaa'ul linsaani ila linsaani loolu mus jàll la mhm. waaye am na yoo xam ne nag da koo tënk jullit yi képp mhm. la jox ndigal loola sëñu leen a génn loolu mooy muqayyad <laughs> noon la daa firi alxuraan firi yu leer yoo xam ne lu mu ci noppi bu noppee da xam lu mu doon kon nag alxuraan jooju mu fonkoon addis yonent bi sallallahu alayhi ku ne xam ne ni mu ko bëggee woon alxuraan ji ñu daara fu daara ne ñu ngi lay ñaan nga jàngal ko alxuraan te sellal ko fu daara ne loo ci mën a teg ci salaatu ala bi fii ba bis ba muy biir réew mi muy bitim réew mi ku ne na nga daal tàmbali njàng mi boo diggee woote bi rek wëlëri yëpp nag ñu ngi leen di woo di woo taalibe bi yëpp yi ne ci biir réew mi ak yi ne ci bitim réew mi di ko yëgal waa commune bi liñ ci war a def lépp xam nañ ko nañ ko def di ko yëgal di soññi dongay murit ñooñu mooy ñooñu nga xam ne ñoom laa war a soññ li ci ñi ci des da ngeen leen da ngeen leen soññ. baax na yal na yàlla def lu ci waay yëngu. Mm. yal na ko yàlla def muy jëf juñ nangu. amiin amiin lépp lu waay yëngu ci moom te defe ko positif nag bay ba nga rafet ci njort ci ne mën naa nekk xamalan xaalisan maqbulan indallah yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla teew ñun ñëpp nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo ngi ñaan yàlla bàyyi la fi. yaag Serigne Cheikh ak njabootu Cheikh Abdou Khadir yëpp beesa beesalaat nga nu peq tey ñu jox kaddu gi nag Serigne Bousso moom itam Alaaji Bousso mu waxtaa mu wax ci turu Serigne Siidi leeral bokk yi ak programme bi nu muy tëddee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen xamal ne ginnaaw bi ndigal lu jógee fa mu war a jógee ci Cheikh Sidil Mokhtar. <laughs> jaar fa war a jaar sëñ Cheikh Mbacke Cheikh Cheikh jaar ci sëriñ Cheikh Mbacke muy xalifa Cheikh Abdoul Khadir jaar sëriñ Moustapha bi nga xam ne mooy jëw kër gi tey jotaay bii di ko ba sëriñ Sidi bi nga xam ne mooy coordonnateur màggal bi kon ñu ngi wax ci aw turam sëriñ Sidi nee na mi ngi woo mboolem ñi mu seqal màggal gi yëpp mboolem bokk yi da tàmbalee ca bokk yi mooy maxaram ka ca njëkk ba ci ci mujj nu ci waay bokkee nag ci ndey ak ci baay ci góor ak ci jigéen ñëpp la woo di woo mboolem taalibe yi di woo mboolem xarit yi di woo mboolem euh, soppe yi sëñ Abdou Khadre bu ñu ko waxee réew mi daj kapp taalibe yi murid yëpp dugg nañ ci biir moom amutoon ab settee ci murid yi mbokk itam ñëpp seen mbokk la euh, ah, soppe nag moom génn sax taalibe yi génn na sax ñu ñu dul jullit kon ñëpp ay soppeem lañ kon ñëpp sëñ Sidi mi ngi ci woo ci bis boobu la di woo mboolem ña nga xam ne bii ñoom la seqal liggéey bi te mooy daa daayira yi nga xam ne mooy daayira yi ci biir réew mi daayira yi na ci bitimu réew yi na ci kër gi ndakaaru fépp ñu ngi leen soññ kenn ku ne fa nga daa taxaw la nga daa def na ko def nu raw noonu ko raw def du daal màggal gi daal wàññi ko amu ci soppi amu ci dëgg yokk rek moo ci am ne kenn ku nekk daal la nga doon def safa li yéene mu waat waaye bu ci dara dellu gannaaw ñu ngi soññi itam mbooleem ña nga xam ne bii dañ daa taxaw ci def ay xéwal di ko indi ñu fi new ko ndaay yi mooy ne waa sëñ Cheikh Bara ak waa këram taxawaay ba ñu ngi leen soññ di ñaan lépp luñ ci waroon def luñ ci yéene yàlla àggal seen yéene waa sëñ Cheikh ña ak sëriñ Seydou Niang ak mboolem mbokk yi nga xam ne bii rek daanañ taxaw taxaw yi noonu ak sëriñ Gassama Mbàkke itam ak mboolem mbokk yi nga xam ne daanañ taxaw ci mel noonu ñaan kenn ku nekk rek la nga ca warloon def dinaa ko def yal yàlla yokk loolu barke sëriñ Tuubaa di xam ne ne itam ne ni euh, ngi ko yëgal mboolem nag ñun seqal réew mi yëpp tam lañ président de la république ak mboolem gouvernement bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo la seqal réew mi mooy ñuy wut taamaguñ ak ñu am ba noppi itam muy porte opposition bi ñëpp ñu leen ciy woo bawuñ kenn ndax sëriñ Abdou ñëpp njabootam am na fa am waa kër ba nekk kon mu ngi woo ñëpp kenn ku nekk daal na nga ñëw la nga ci war a taxawee nga ko réew mi nag dëkk magal gi cee bokk lépp loo xam ne li mbooloo soxla na ko wala aajo woon na ko ñu daa ko defee mbooloo ko ci bis bi itam kon kenn ko na nga ko def na ko war a defee ñu ngi woo ñëpp ci loolu te xam leen nag ne daan dañoo am ay plateau spécial yu ci def yoo xam ne yi ñu ngi ko tuddee waajal màggal gi mu nekk ñeenti plateau bu njëkk bi ñu ngi koy def alxames kër Serigne Fallou Mbacke Serigne Amadou Fati Gaye kooku ku ne xam ne digg boog Serigne Abdou Khadir mu nekk ci Daaru Manaan loolu mi nga nekk le 21 septième mois 2022 ci alxames ci 17 heures incha ñaareel ba mooy kër Serigne Fallou Lo moom itam ñu koy def gaawu Serigne Fallou Lo ci sura gaawu lay doon le 23 septième mois 22 moom itam incha allah ci sura 17 heures lay doon incha allah ñetteel ba mooy kër Serigne Sidi Abdou Khadir lañ koy defe moom ak euh, ak lay doon la le 25 septième boobu moom itam incha allah ci 17h boobu ñeenteel bi nag mooy plateau ci kër gi fii lañ koy defee moom moom mooy nekk moom talaata le 27 septième waa incha allah kon na ko ñëpp bàyyi xel ñëpp fonk ko baax baax ñu ngi woo ñëpp di séntu ñëpp yàlla yàlla di indi ci jàmm delluwaat ci jàmm lépp lu fay ñaan ñaan yàlla ko yàlla nangu jot ko Sëriñ Tuubaa jërëjëf. dégg ngeen sëriñ yi mu ñu jox kàddu gi nag Cheikh Mourtala Mbacke mu sëñ Modou Abdou Khadir mu wax ci turu sët yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokki fi teew yëpp di jiital ci suñu nuyoo Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh mi nga xam ne moo moo fi teew teewal fi Serigne Cheikh di wax ci su turu Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo moo moo jiite màggal gi di woote nag ci turu sët Cheikh Abdoul Khadir xam ne ñu nag ñun daanaka mën naa ne ñoo war a laxasaayu jiitu ci liggéey bi topp ci ginnaaw sëriñ si ñu ngi soññi mboolem koo xamante ni da ngaa sëtoo ci Sëriñ Abdou moo ci mën di sëtoo góor wala jigéen mag wala ndaw taxawaay yi nga xam ne ñu ngi ko daa taxaw ci màggal gi ñun ñëpp ñu maase laxasaayu àndandoo euh, topp ci ginnaaw sëriñ Sidi ba ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko noonu nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi mboolem ñi nga xamante ni ñoo bokk ñoom sëriñ Tuubaa ñëpp xam ne bis bi mooy suñu bis moom loonu am lañ ci daa def lépp it fas nañ yéene lépp daan ko daan fas yéene yokk ko waaye fasuñ ci yéene wàññi dara ñu ngi ñaan suñu borom àgg lañ ci ak jàmm te mboolem lu ci def lépp rek ñu daje ci ngërëmu sëñ Tuubaa ci sàkk it bépp boo xam ne sëtu sëñ Abdou Khadre nga lu tàmbalee eh, tey tey jii ba keroog màgg eh, màggal gi ñëw loo mën ci jàng alxuraan ci sa jëmmi bopp nga def ko ko delloo ko ko njukkal ak góor ak jigéen mboolem koo xam ne mënoon nga ko sa bopp na nga ko def ñu ko mën a ñu ko mën a seq ñu seq ko bu demee ba àgg ca bis bu jege bee ñu dajee tëj ko kon nag ñu ngi ñu ngi gën a fedd luwaat suñu laxasaay bu baax ci ak suñu taalibe te suñu dinaa kilifa fas ci yéene eh, lépp loo xamante ni rek digal nañ ñu ko rek ñu ñu doxale ko noonu. mu ngi ciy woo mu ngi ciy woo mboolem seqal sëñ bi ñëpp rek bu ñu waxee kun seqal sëñ Tuubaa nag maanaam ñëpp ci leen bokk kon jërëjëf yàlla nañ ci àgg ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu jox kon kàddu gi sëñ Mamour Diasra ci turu fédération bi. xam ne mooy fédération Kër Cheikh Abdou Khadir nun ñëpp nu àndandoo déglu ko. asalaamaaleykum yéen waa fédération Kër Cheikh Abdou Khadir di mooy taalibe nga xam ne ñu aju ci Kër Cheikh ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp xamal ne suñ bis bii leen leen di soññee nga xam ne amuñu lu may moom ñu bisu màggal Cheikh Abdou Khadir ñu ngi ci woo bokki jullit yëpp rawatina bokki taalibe yëpp di wax si bokki taalibe yi xamal leen ne gis bi ñaari at ak yoo xam ne defuñu ko. kon ren nag ñu war koo def eh, kon li war li war li ñu def ci ñaari di yëpp lu ko raw dañ ko def ci at mii mm-hmm. kon nit ñëpp nañ ko kenn ku ci ne xam ne amuñ lu may bis bi ñooy war a teeru gan ñi ñoo lay war a teral kenn ku fi ñëw bu mu tumuranke loolu nag fédération bi moo ko war a def kon nag ñu ngi koy loolu maa ngi koy wax ci turu Serigne Cheikh Goumbale mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar eh, ak waa Dakar yu ñëpp ci turam lañ koy ci turam la ñuy defee fa waxtaan wii dina xamal ne mi ngi soññ mboolem daayira bu nekk Dakar xamal ne nañ ko waaj nañ ko daan waajee ak mboolem fu daayira nekk ci biir réew mi ak bitim réew muy daayira si doxaay yi nekk Italie Espagne Amérique ak daayira yi nga xam ne moo nekk Guinée Bissau ñëpp sëriñ si di nee mi ngi leen di fàttali bis bi nee na nañ ko nañ ko waajal te fonk ko di soññ itam daayira turam la si Abdou Khadir yi nga xam ne taxawaay bi ñu ci daan am ku ne xam na ko ci wàllu organisation bi yëpp itam ak ni ko sëriñ Moustapha waxee léegi moo xam ne mu ñooy doongee laxsaa yi nga xam ne ñoom bis bi euh, seen bis ku lu fa waaye def ñoom lay dimbale ñoom itam ñu ngi leen di soññi taxawaay yi nga xam daanañ ko am ci bis bi euh, ci ci kër gi ci organisation bi loolu ñu leen di fàttali fàttali mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju euh, bi ne incha allah mbalay bi danañ ko def àllarba maanaam ajjuma ji di ñëw di le 22 incha allah li ñuy dajee fii ci kër gi ak ci mboolem barab yi nga xam ne njaboot si bi xarit daje nañ fa ñu bale ko ba mu set wecc ngir teeroo ko gan yi waajale ko bis boobu yowee buñ àggee ba nga xam ne àgg nañ ci àllarba ji rek di la 28 ci lañu daje ci bis bi ci kër gi baas lépp loo xam ne nekk ci wàllu baas ñu def ko ñu xam ndax ci nawet la ñu nekk kon nag ñu ngi woon ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ñëw jàppale ñu suñ bis bi nga xam ne amuñ lu may moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Maam Mor Diatara li mu wax ci turu fédération bi ñu jox kàddu gi nag Serigne Djili Dia mu wax ci turu turandoo yi nun ñëpp nu àndandoo déglu ko bismillahi rahmaani rahim barkab sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax te leen ziar di yëkkati sunu kàddu rek ci turu mboolem turu ndey Sëriñ yi nga xam ne bis bi seen bisu bopp la ndax ñoo ko tàmbali woon sëñ Blanc nag newoon na mbir yi ñett la li nga moom ak li nga bokk ak li nga doonul dara lii nag dañ koo moom kon ñu ngi yëkkati nga xam ne mu nekk ci bopp bi di soññi mboolem fu turandoo sëñ Abdou Khadir nekk ci réew mi ak ci bitim réew ñu bokk waajal bu baax sunu bisub turandoo bi kenn ku nekk fa nga daan bindoo cellule ba fa nekk nga dellu yeesal mbind ma te joxe fa sàddiya ngir waajal bis bi bu ko defee cellule bi nga xam ne moo nekk diggante Touba ak Mbacké ñu ngi leen di moom ci liggéey yi nga xam ne moom lañ daan taxawee tàmbalee ko ci mbale mi nga xam ne moom la ñu woote ajjuma le 22 bu ñu xëyee ñu ñëpp ñu bokk rajo fii bi nga xam turandooy chef de xarit yi ñoo ko daan taxawee ci biir kër gi dara soppiku ca tàmbalee ko ca liggéey bi nga xam ne mooy jiitu màggal gi ba ci bisu màggal ga bisu màggal gaa ñun ñëpp ñu bokk daje ci kër Serigne Moutalla Mbacké moom Seexul Xadim wéyal fa liggéey bi ñu daan def ci jàng alxuraan ko fanaane ko def ñuy sukkandiku ci ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Amadou Moustapha joxe ñu bàyyi ko xel ci ni ñu ko daan waajalee fu turandoo Cheikh Abdoul Khadir nekk mu jàng kaamilu alxuraan def ko addee Cheikh Abdoul Khadir loolu nag benn kaamil la tàmbalee waaye lu waay man ci limu alxuraan doy na ko def ñu def ko addiyee Cheikh Abdou Khadir te lim bi bu ñu degee kër sëñ Murtala ñu degale ko jox ko jëwriñ ya fa nekk incha allah kon ñu ngi ci woo fu turandoo Cheikh Abdou yi nga xamee ne ñoo tarbiya waa ci sëriñ kër sëriñ Abdou Khadir <coughs> di leen soññ rek nan leen daa soññee soññee bi nag sunu sëriñ sax jàppale nañu loolu muy sëriñ Moustapha ndax dégg ngeen ne tudd na donge laxasaay yëpp loolu doyoon na ci mm-hmm. waaye nag li tax itam ñuy wax dafa am yoon moom daa doxe mooy jënd liggéey bi nga xamee ni ñoo ko yoroon ci kër Serigne Abdou Khadir nga xam ne biir kees yi ñoo ko daa setal ci njëlbeen gi di ko setal ci mujj ga Serigne Touba Mbacke nag waxoon ne na leen ci soññu ba kenn ku ci nekk nga bàyyi ko xel te fas ci yéene liggéeyal sëriñ bi la cay tege moo ñu deen soññ ci ah addi yi daa joxe di ko dajale muy ahlu tarbiya bi seeni teg ak sociale bi nga xamee ne dañ koo def ci biir ngir di ci dimbalante ñu di leen xamal rek ne leen yéen seen digal na nga xamee ni laa da ni la daa doxee dara da ca soppi ko wut lu weesu wut njëkk fi mujj fi ànd ak ab yar ak i teggin te ànd ak sëriñ bu so mi nga xamee ne mooy suñ njiit ne ci kanam di ko déglu lépp loo xam ne dafa jóge ci sëriñ Sidi bu jaaree ci moom bu egg see ñu jëfe ko nañ ko war a jëfee loolu mooy suñuy wax mooy suñu jëf ñu ngi leen di woo ñi nga xamee ne dañoo nekk fi jege dëkk bi ñu ngi leen di woo réunion ajjuma ñu teew fii ci kër Serigne Abdou Khadir ñi nga xamee ne dañoo ne bitim réew itam ñi ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk ndaw la la ne ci sa kër moo xam sa doom la moo xam sa soxna na nga ko jox addi yi indi ko ajjuma loolu daal mooy soññ bi Serigne Touba waxoon ne nañ ko wax muy Serigne Touba Mbacke Baxdaad te tam jóge ci Serigne Jili Ndiaye mi nga xam ne ñun ñëpp mooy suñ mag ak ko mel ne Serigne Mbacke Jenn ak Serigne El Hadj Ndiaye Rasit ak Serigne Afi Bousso moom yi ndax ñu itam jàpp nañ ci daayira bi lool wéttali nañ ñu lool kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom guddal seenu fan defal leen tawféex ba li ñuy mébati sëñ bi di ko yaakaar lépp ñu defal ñu ko ñu ñaan nag ah, sëriñ Sidi Mbacke mii nga xam ne mooy suñu jëwriñ ah sëriñ Moustapha ñi ngi lay ñaan nga ñaanal ko. Mhm. aw fanam gudd tam wér. ndax nit la koo xam ne mi ngi déglu ñëpp xeebut xelam kenn. te du sonn ba soppi ko. kon nag ñu ko ñaanalal bu baax a baax ndam lu ci daa am yal na ci am ren lu ko ëpp ci barkeb sëriñ Abdou Khadir ngeen sëriñ Jiili Jeng wax ji mu wax waaye xanaa rek wax Cheikh Moustapha ne ko njabootu sëñ Abdou Khadir ñu sant Boussa ak Mbakke ñëpp ñu ngi àndandoo di sant Cheikh Mamadou Mountakha Mbakke ndax sëñ Mountakha ku ne xam ne diggam ak sëñ Abdou Khadir waaye ginnaaw sëñ Abdou Khadir nag cër bi mu jox njabootu Cheikh Abdou Khadir gépp ñëpp teg na ci bët kon bis bii bis yëpp la moom de waaye bis sëñ Abdou Khadir moom génnul jibaam ma nga ca biir bis baa ngi noonu mooy bis sunu jàmbaar ja ka nga xam ni moo daa tudd doom yi du jullee ji néew yi dafay ordonnance yi wuuf njaboot gi kenn ju xanaa dégg ngeen la ma waxoon sëñ jëli gànnaar ba ko joxee ñaari junni ñu ko ku ñaan maram juuf moo ma ko jox ma nga njukki ne dafa ragal bàmmeel mun ko na dalal xelam jukkee naa ko fa kookoy Cheikh Abdou Khadir ilimaan yi tey ba léegi bi mu fi nekkee ilimaan la bi mu fi jógee ilimaan la ba léegi mi ngi ci penku jumaa ji l'islam jëmu ko Sénégal yebul sëñ Abdou Khadir ku mu jur yar na la teg na leen ci yoon ku ñëw ci bis Cheikh Abdou Khadir alxuraan moo lay fay ak julli ak yitte yooyu lay kar fay la bis baa ngoog la premier la bu kenn manqué. ñu xam ni nag bâche bi ci guddi gi Xaadim Géey moo fay fanaanee jàng ba ba set na ñëpp ñëw bis Cheikh Abdou Khadir ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu.